xaysu ab taw min sagbil joodil barri bu bàyyi ko ci niir wu xiin ba ñëlingaan barek ndox ga xiin way wàcce soo xajalin boroom ak gàccel la ak wis wisal ni yaari ndox yooyu wuute lay yonent bi alayhi salaatu wassalaam wuuteeg mbooleem bindeefi walay su xaabin gaynde gu mer ba dangañ di dungaab dungaa bi ci digg manding faraaru day daawloo kewel ak rab yamel ni kewel li xaw fin ngir ragal gu bàyyi ko ca ñoom goog ña koy ragal ñoom rab yooya min hu gaynde ga noo ni leen gaynde ëppe doole ba bu leen jàppee faagaagal leen ba ñu di ko daw ndax ragal ko noo ni la rasulillahi ëppe daraja mboolem bindeef yi waaye loo ñeeloon na ko moom rasulillahi minal ilmi cik lewet lewet goo xam ne maalam yax wi sunu boroom mosu koo jox jëbalun aw doj aw doj loo ko teg mu nangu loo ko def mu ne cell boo taalee sawara ci kawam sax aw doj ne cell ngir lewet mu ne lewet ga nekkoon ca rasulillah yi moo ëpp doole lewet googee ngay séen ca doj wa ndeysaan sëriñ Tuubaa nee na laaqa rasulillah yi daana dajeek al ay lor lor yoo xam ne fil baraya ma nga tukkee ca mbindeef ya waaye waxu moom rasulillah yi sabaru ab muña kon la woon te daan muñ yépp lor yuñ ko teg rek ndeysaan mu muñ ko inna rasola naka yonente yàlla boobu la sayfun jaasi la joo xam ne yustada ubihi jaasi juy larax laraxi la ba ees mën a seetu ca moom ndax ñaw guñ ko ñawal moom rasulillahi muhannadun daa bokk ci jaase yi asiye ya ni jaase yi asiye mel muhannad mooy asiye ba day dagg bant dagg plastique dagg beteex dagg përëm dagg ak weñ ndax asiye gamu doon rasulullah yi noo nii la ëppe daraja mbooleem ni jaasi muham hunnat jooju ëpp daraja mboolem jaasiya noonu la rasulullah ëpp ëppe daraja mboolem bindee fi te rasulullah yi min suyufillahi daa bokkoon ca jaase sunu borom ya bëtteeru te ab daggaa kon la ndeysaan lil kulli ñeel kenn ku nekk min jumlatil axyaari ca mbooleem ya kenn ku nekk sunu borom joxoon na ko joxoon na ko martabatun daraja lakinama waaye ahmadu muhammad mii nag muxtaarul mooy tànneefu tànneef ya salla yal na yàlla dolli teraanga ali ci jëmmam ja allazi yàlla mi nga xam ne xadamoho ko jiital ca kanam ñépp fil jahri ci lu feeñ ne fang yàlla moo jiital muhammad teg ko ca kanam musalliman yal ko yàlla dolli musalam ga tib xama lu tolloog nanga nga xam ne sunu borom bëgg na ko noona jëmale ko ca muhammad wa yaxtaaru te tànn loolee jëmale ko ca muhammad amin muy taraanga ak jàmm taraanga ak jàmm moomu wala yal na ko yàlla eggale ca ñu muy njabootam nga ko toppoon te ko man njaboot ga nga xam ne bixtisaasin ki ay jagle yu nekk ca ñoom xat awaw ca lañu làqe sharafan ak cëriif njaboot googe toppoon Muhammad dik njabootam te toppoon ko tëggam ko yàlla da leen jagleel ak ciriif ndeysaan muy tedd nga ju mag ndax li anum naka njabootam googee di njaboot ak Muhammad saadaatun ay sang lañu axiyaaru ay tànneef lañu lil wara ci kaw mbindeef yépp sallallahu alayhi wa sallam sëriñ taraanga jàmm moom muy ñaanal muhammad wa sahbi yal na ko yàlla eggale ca àndaaleem ya alxuriman ñay sang ya nga xam ne sabaxoo jiitu nañu axra nahum seen ak mu ne saaba ya nga xam ne gis nañ muhammad gëm la ko sunu borom yónni ànd moom ci diine ji ñaan goom muy ñaanal waa kër muhammad yal na law ba egg ca saaba ya ñi xam ne ñoo àndoon ak Muhammad ngir taxawal diine is ngir baaduhum lenn ca saxaaba ya haajaro dañoo gàddaayoon ànd Muhammad wal bahdu lenn ca saxaaba ya ansaaru dañoo nekkoon Madina ba Muhammad ñëwee fa ñoom ñu ànd moom di ko dimbale ci diine ji gëm diine ànd ak moom muy waa muhaajiroon ak waa ansaar sëñ Tuubaa nee ñooñu yeneen yàlla doli teraanga ak jàmm ak njaboot ak muhammad ak muhammad alayhi salaatu wassalaam amin lahum ñoom la dalay fa yàlla ñoom ñooñu tax si sun dañ fa am ay jagle yu mag bi ma ci jagle yoo xam ne safiro ca lañu jekkoo lépp lu leen di jural ngërëmal yàlla humu ñoom nu joomu ay biddéew lañu ñoom saxaaba yooyu ñoom ay biddéew lañu yoo xam ne li xaw min ñeel nañu nit ña nga xam ne saaroo dañuy dox fi du jaa ci biir ak lëndëm ne leen biddéew yi gindee ca biir lëndëm nga guddi noo nii la saxaaba yi mel noo nii lañ daan gindee mbindee ci lislaam kon saxaaba yi ay biddeew lañu yuy gindi bindeef di gindi jullit yi ngir taxawal lislaam lahum ñoom la daalaay fa yàlla tan wiilun dañ fa am ay may kowe ñoom saxaaba yooyu safa ndax ñoo daan saafara hilalan rëngi-rëngi diine lépp loo xam ne diine ko daan jànkonteel ànd ak yonent bi alayhi salaatu wasalaam ñoom saxaaba yooyu ñoo daan taxaw bu laajee xare ñu xare bu laajee joxe alal ñu joxe ko bu laajee lijjanti ñoom ñoo daan jàppale diine ba diine taxaw ndeysaan isngir zayala deñal nañu kenn ku nekk ci ñoom alkulla kenn ku nekk ci ñoom daanañu deñal addinaa sun tilim tilim ya doon tilimal diine wa ak dëru ak nëx-nëx yi diine daan jànkonteel ñoom saxaba yooyu yi ñoo ko daan saafara bi nu si ci ànd ak laabiire gu mag lil xalxi jëme ko ci bindee fi sunu boroom yi wal imaani ànd ak gëm yàlla gu mag ñoom saxaaba yi xat jubiloo dañoo dëgëraloon ni doj ñoom ñépp dañoo dëgëraloon seen xolle ci ngëm yàlla niw doj ndeysaan wal imaani ànd ak gëm yàlla gog xat jubiloo dëgëraloon nañ ca seen xol ya turan boole seem niw doj dëgëre noonee la gëm yàlla ak saxaba ya dëgëre woon day sànn waqaf di lazi ñu boole ca nag di suufee lépp loo xam ne ahlat hu ña nga ko daan koweel kuffaaru yéefar ya muy xërëm yaak ya demee noonee nga xam ne amut solo te yéefar ya daan ko réel di ko màggal ñoom saxaba yi dañ daan suufeel yooya joxoñ rasulillahi joxoñ yàlla joxoñ alquran joxoñ diine wasafo ñu boole ca nag di selal wala xilmu ñu boole ca ak lewet dahaban ba faw yooyu yépp àndoon na ca màndargaay saxaaba ya jikko sel sell yooyu lil jamihi noonu la nekkoon ca mbooleem saxaaba ya kama kaano noonu it la ñu nekke woon yu diimoona di saxoo ñoom saxaaba yépp taqawan ak ragal yàlla ay suma daaru fuñ fi mën di dëkk ñoom ñépp ña nga ci jikko yu sell yooyee di melokaan wi sunu borom gën a bëgg cib jaam muy gëm yàlla ragal yàlla tey jaamu yàlla